tey rek ñun sax dañuy dugg ci mm. terrain mais coow yi ci juddu yëpp. Mm. vraiment fu mu dem aussi gaa yi di tojante bopp xeex. mais mm. est-ce que loolu mënut ne fu mu dem gars yi di tojante bopp di xeex. mais mais bi yàgg na am te amul benn bruit. bañ demee Cikki. fa la bruit am. mais avant Cikki Mbour aussi amoon na coow ba ba gendarmerie génn. waa xam nga bu fekkente ne moom day déranger. ñi nga xamante ne dañ leen a gagné seen sax bureau de vote sax dañ leen faa gagné. nga jël quelques nit mobiliser leen. wala nga jël say nerf yi leen. ne leen bu Ousmane Sonko jàllee ngeen yuuxoo ko wala na ngeen ko xaañ xeer wala na ngeen ko nàngam parce que seen problème mooy àll bi dañoo jaboliser woon président Sonko. Hmm. mag ñi ragal ko. léegi nag comme ni mu taalee xelu gone yi taal xelu jigéen ñi. Hmm. dafa dugg ci àll bi pour taal xelu mag ñi dugg ci village yi gox yi gox goxaat yi. Hmm. waa gis nañ nag ampleur bi mu am moo leen di déranger. moo tax ñu bëgg ko fu romb rek ñu bëgg ko cokkaas ak kukkale ka loolu. du ko tax a taxaw de. Hmm. déedéet ñun ci yoon lañ ne président Sonko dañ ko yónni te yàkkamti ko ñun. ku ko yónni ñun yi ñoo ko yónni yàkkamti ko. ñoo ko yónni. mu dox li war a dox pare ñu gunge ko ca pare mu liggéeyal ñu suñu Sénégal liggéey Afrique kooku Sénégal sax tuuti na ci moom. nga ni waaw kooku Afrique ñoo ko bëgg. Ah, soxna Awa <laughs> man panafricaniste la man moom man man luy boole Afrique rek. kon jeex na ñun loolu lañ bëgg. loolu moom lu am solo Afrique doon benn bopp mais est-ce que nag. est-ce que nag yaakaar nga ne vraiment dina yomb. ci naka. ci jël réew mi 2024. waaye parce que nag parce que nag ab li bii nag. yéen da ngeen ci rafet njort. mais beneen camp bi nag dossier bii rek la ñu yaakaar aussi. waaw xam nga yaakaar nga ne dina yombe noonu pour mu génn ci déjà pour mën a bokk ci ay élection moom. xam nga yow. Hmm. soose. Hmm. dañ lay booleek nit ngeen di bëri mu leer la ne nit kee la mën. Hmm. waaye du tee da nga góorlu da nga wut gàllaaj danga nga entraîné da wut coach. soo duggee ca làmb ja danga nga bàkku da nga diwoo saafara ba ba arbitre ba di soufflé da nga dëggal sa bopp. waaye yow leer na la ne ci sa xel ni ak sa xalaat ni ki nga jàkkaarlool moo la mën. noonu nga ko gisee waaye da ko wane waaw. Hmm. Uh-huh. mais ñoom président Ousmane Sonko mënuñ ko arrêté xam nga tey olof Ndiaye def nii fal leen ma fal leen ma. Hmm. ku ne mën na ko waaye kaay ñu fal la bon looloo jafe te moom loolu la am. Hmm. ñun ñoo ko bëgg ñun ñoo ko choisir projet bu mu yore. keneen ku ko yoroon ñu topp la. d'accord président son ko projet la yor. waaw projet bi mooy lan. projet bi mooy. defaraat Sénégal projet bi mooy suñu ressources yi toog ci réew mi suñu doom yi di dee ci géej gi jeex. Hmm. projet bi mooy lépp lu Sénégal moom mu des ci loxo Sénégal Sénégal moom ko gérer ko. Hmm. projet bi mooy delloo si état de droit projet bi mooy. état de droit dafa ñàkk ci réew mi. amu fi. ah bon. Uh-huh. pourtant pourtant pourtant ku sa ku sa bët xonk tribunal ngay dem de wala nga dem police gendarmerie. Ah, état de droit mooy indi loolu. ah waaw waaye loolu mënta ñàkk. Hmm. loolu mënta ñàkk waaye yow leer na la ne yow ma fay dem. Hmm. xam nga ni. xam nga la la ci fekk. waaw. Hmm. kumba am ndey kumba amul ndey gi dafay am. ah bon bien li ñu génnee barki démb. sécurité bi ñu génne barki démb. pour lan. ah dafa am lu fi jaaroon nag. waa la fa jaaroon xam nga lu ko waral. la fa njëkkoon a jaar moo ko waraloon. muy dañoo yootu Karim ne ko déqat. Sénégalais yi noppi. ne ah xëy na daa jël mu yootu président xalifa Sall tër sénégalais yi genn wàll gi jóg genn wàll gi noppi toog ci kër yi di wax hmm. mu ni ŋaas sunu yaakaar gi kenn du ko ko may hmm. déedéet kenn du ko sacrifier wala nga xam dangay jaar ci kaw sénégalais yi bañ jeex takk hmm. doo ko def ci moom li nga bëgg a def ci moom d'accord ñaar ñi nga njëkk a tudd muy Karim Wade ak Khalifa Sall dégg nguur gi euh, Macky Sall ci boppam wax na ko ñu ngi xalaat ne nañ amnistie fee yi nga xam ne moo taxoon ñu topp leen ba ñu mën a bokkaat ci élection yi lan nga yaakaar ne tax. waaw loolu xam nga loolu yàpp sénégalais yi weesuwu ko. Hmm. parce que tey boo taxawee ne Awa Ndao dafa sàcc. Hmm. sàcc na nangami million jël ko tëj ko toog ba mu neex la nga ne Awa ko kat sàcc ga ma ko jiiñoon. dama koy teggil ba mu set wecc wan ko ne mosoo sàcc wan Sénégal ne mosul sàcc. Mhm. loolu noo ko mën a tuddee bien bien sûr kontaan nañ ci. Mhm. parce que kenn ku nekk war nga libre libre gu day ne yow mii sax soo bëggoon a nekk candidat. Mhm. nga libre nekk candidat parce que réew mii ndey kenn moomu ko bàyyi kenn moomu ko. Sénégal sunu gaal la kenn ku ne am nga ci wàll amul xeet amul waasu amul dara. kon ñooñu c'est très normal mu setal leen waaye lam leen takkaloon kon xanaa daa amut. ba mu leen di setal. ah est-ce que du da leen indi aussi pour ñu jàkkaarloog seen waa ji. ñun ragaluñu loolu. ragalu leen loolu. déedéet. Hmm. waaw waaw. lu tax dañ ko ragalut. lu tax liggéey la te ñun liggéey nañ. Hmm. ah da nga jàpp ne Khalifa Sall liggéeyut dara. non Khalifa Sall newuñu la liggéeyut. Karim liggéeyut dara aussi. Karim Wade lu mu liggéey papa may Ablaye Wade. Hmm. Ablaye Wade Sénégalais yi bëgg nañ ko. ah PDS kat yéen ànd ak ñoom ba ba tax ñu am li mu député bi ñu am attention waaw déggoo li ma ne la Ablaye Wade moo ñu gën a sunu bët yi ñuy xoolee ndax li mu def ci réew mi. Mm. ci yërmande. Mm. ci mbaax ci commencé liggéey Sénégal xam nga lu ñu metti mm. dañ koo jël fekk âgé na. ba tey ñu ngi koy jooy bu ñu ko mënoon a tëggaat dinañ ko tëggaat. xëy na patriotisme gi ñu gisoon ci moom. mboolem président bu fi jaar moom moo ci gën. loolu lañ gis ci président Sonko ba doublé ko. d'accord moo tax ñu bëgg ko. d'accord Karim bi ngeen a liggéeyul dara laa ne. Euh, gis nga intercoalition wàllu yeewi hmm? wallu am nañ seen li mu député boo xam ne mosuñu koo am daanaka ba ñu perte ak réew mi ba léegi c'est la première fois ñu jógaat. yàlla ak kan. yàlla ak lëkkaloo bi ngeen lëkkaloo. Eh, yàlla ak président Sonko. <laughs> waaw ba tey <laughs> mu leer ne moom du candidat. bu la neexee nga tuddee ko noonu. waaw léegi moom libéré réew ñor. waaw léegi Karim moomu bu ñëwee. waaw mbaa du mujj wëlbatiku jàkkaarloog yéen. waaw bañu ñu loolu. Ah. na liggéey ñun dañoo wàcc ci terrain bi liggéey li ñu am dañoo ramper ba egsi fii Mm. moom président wadd mooy papaam ñëpp xam nañ ko waaye na rampe wàcc liggéey. Mm. ñu ragaluñu loolu. gëm nga ne ñoom ñaar war nañoo mën a lëkkaloo def nii. lëkkaloo pour faire pour faire face à à à Macky Sall mille vingt quatre. bu dee dina bokk. même bu dee dafa bokk kenn ku nekk na nga dem wuti. Mm. su kii foree dem kii for Dakar kii for si Mali. ñu boolante. mais soxna Awa politique aussi war daf ci bari de te xam nga bu baax li ma lay wax. xam naa ko bu baax. war bari na ci de mbaa du ngeen yàq jàpp loolu ba au dernier moment gars yi am nuñ mel. waaw hmm? waaye xam nga ñun ñun hmm. suñu bopp ñun. Hmm. ñun xam nañ li ñu liggéey lan la. Pastef. non Pastef xam nañu li ñu liggéey fi nekk nii kenn mënul tudd Sénégal te tuddoo président Ousmane Sonko. kenn mënul tudd politique te tuddoo ko lan moo ko wax te pourtant yàggu fi. parce que ci cinq ans. lañu liggéey lii ñu liggéey nii te day gën a jëm kanam. ñun mm. ñun ragaluñu ki ragal kay ku mu jàkkaar lool mooy éliminer adversaire yi ndax yow mënoo di bëre di tànn mbër ba ngay bëreel waaye ñun mm. ragaluñu mm. déedéet ñun daal élection yi moom kenn mënu leen cee génne moom non non non non xel xalaatu ko kon élection du am Sénégal ah. élection sans président Sonko ah non kon élection du am Sénégal non du am ah ci loolu xel xalaatu ko président Sonko ah eh. élection mënul am te bokk ci ah déet tout ça sa dépend ci li génn ci ci dossier bi de. ban dossier yow mënoo maa bàyyi dossier bi nga xamante ne théâtre la. nga ni. dossier bii. Hmm. vide plus vide égal vide théâtre la. ah. dara ne waaw ah, kon kon lu kon lu ko tey am juge bi kon na prononcé nos lieux. waaw ko sans suite. Ah, juge bi de ñu ngi koy déglu. Hmm, hmm. bu dee moom moom boppam. bu dee moom moom boppam dana ko classé. ah lu tax nga ne bu dee moom su dee moomul boppam nag. ah <laughs> ñun pare nañ pour défendre suñu bopp. da ngaa njort ne moomul boppam. déedéet moom fu moomee boppam. Hmm. de moomul boppam. dañ leen faa teg noonu rek comme ay meuble def leen ñu def bàyyi leen. ñu waay déedéet waaye yow tamit looloo ah. am. ay magistrat yi nag yow tamit am na ci ñoo xam ne c'est vrai que am na ci ñu doy waar mais am duñ leen dugal ñëpp ci même sac waaw dama ne du ñëpp mais hmm. kii doon entendre euh, hmm. président Sonko kooku dañ koo tànn sepp ko ci gars yi teg ko ne ko defal la ñuy décider du moom moo koy décider dañ koy décider jox ko ko mu def ko tax nag moom moom ñi ko xam ñi liggéey ak ñoom ñëpp nee nañ ku ku jub la ku dëggu la da ngeen a loolu yéen. ah en tout cas daal xam naa ne daal. Hmm. réew mi moom. Hmm. tëddeewul njaaxaanaay barki démb nag bi yëf yi amee. d' nee naa ñi jàng droit ci réew mi nañ génn wax. d' accord parce que am na ñu jàng droit ci réew mi ñu ragal yàlla. ñu xam dëgg tey àtte dëgg. Hmm. te artu moo gën àtte nañ génn wax. parce que lii du jàll. d' accord d' accord soxna Awa Ndaw euh, Wade mbokk yi moom lañ dalal tey mhm. ñu jëm ci yeneen ponk yi euh, bi ci mujj fan yi mooy coowal quarante cinq milliards ay contrat bu ne ne